mbokk yi asalaamaaleykum noo ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bu sell wii xàll wii nga xam ne lu ne wax nañ ko fi lu ne def nañ ko fi ñu sàggane ko Touba ca kanam ci xalaatam yu rafet ak yéeneem ñëw ci ndigalal sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mbokk yi garab yi xam ngeen ne sëriñ bee ko fi jëmbat ndax garab gi fi njëkk a jëmbat sëriñ bee wàcc fii ci otoom ci loxoom yi sell yooyu jëmbat fi garab gi ñaan ko ngir lan ngir xar kanu bi gën a yànj gën a méngoo ak dëkk bi waaye mbokk yi xam ngeen ne dëkk bi bëri na fi ñoo xam ne dëkk bi ñoru leen li leen ñor mooy koppor yi ñu war a mën a jëlee ci biir dëkk bi loolu nag dañ ko war a lijjanti waaw nan la ay nit di ñëwee fekk liggéey bu rëy bii ñu liggéeyal ko Touba ci njiital Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké ñu ñëw jël seeni pano ngir njaay mu ñu war a jaay ci biir màggal gi ñëw di ko teg ci kaw garab yi jàpp ngeen ne lii jaadul jàpp ngeen ne lii xel mën na koo nangu li fi nit ñi daj grillage yii garab yii nga xam ne watu Touba kanam jël nañ fan weeri million mbokk yi fanweeri million mooy seen ñaar téeméer yooyu lañu dajale ba mat fanweeri million te loolu nag dama koy yemale ci garab yi ak grillage yi waaye la koy arrosé kenn xam nga waxuma leen ko kon fii boo ko toppee ñaata million lañ fi def tey ci seen ñaar téeméer yooyu ñeneen ñëw jàpp na ñoom war nañ fee dajale lu toll noonu def ko seen gafa ga dem seen yoon donc loolu rek moo leen ñor ñu ñëw amuñu dara lu ñuy def nag jël seen panne yi nga xam ne jaay rek ko tax a jóg parce que defe nañ ne foire la ndax dañ leen gëmloo ne fii foire la bàyyi leen it ñu jàppee ko foire ñëw jël seen seen bagage yi ñëw sànni ko fii ci kaw mais lii jaaduwul te lii bu ngeen ko seetaanee des na ñeneen ñuy ñëw de ndax panneau bi dañ ko takk ba ca kaw te lenn luy mandargaal ne ay nit ñoo fi daje ngir sant sunu borom du ngeen ko fi gis ñuy jaay rek te bu jaayee ba pare dañuy génn dëkk bi yëpp reew mi sax dañ ko génn dem seen yoon mbokk yi lii rafetul lii jaaduwul na ci ñëpp taxaw lii sàmm ko kat ñun ñëpp la war ñi nga xam ne ñoo ñëw ci màggal gi di wut koom nañ xam ne barab bi ñoom kom bi dañ koy wut di ko génne dëkk bi waa Touba ca kanam jël ay ñaar téeméer ci waa Touba ak ci diaspora bi ñëw na nañ taaral dëkk bi nañ lijjanti dëkk bi ba nga xam ne ndox yi taa dana dëñ ba gan ñi ñu mën leen a teeru yow ngay ñëw di ut ay koppar xalaatoo dara lu dul nag la ñu jotagu si nga yàq ko loolu nag nañ ci jël ay matukaay am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ñëw jàpp nañ ne poteaux yi ñoom buñ ko takkul du ñu màggal ndax seen màggal mooy jaay am koppar génn dëkk bi génn réew mi loolu nag dafa war a dakk lii moom lu ñaaw la te ñëpp ci war a taxaw te ñi nga xam ne ñëwaguñ balaa ñu fee def dara nañ ñëw jokkoo ak waa Touba ca kanam xam nañ ne jaay nañ fii ba pare waaye nag nañ ñu sàmmal lii ndax kat lii waxuma la yéen a ji sëñ waa Touba ca kanamam waaye sëñ Mountakha Mbacké moo ko fi jëmbat image yaa ngi nii yéen a ngi koy gis mbokk yi xam nga bu ngeen seetloo léegi ba ñu defaree fii ba léegi nit ñi am nañ fu ñu dox ak seen teyu bakkan gis nga nit ñaa ngi nii fii la ñu dox waaye bu leen yem ci dox ci dimbale leen ñu ngeen sàmmale ko ndax seen yëf la yéen waa garage bi yéen ñiy jaayit ngal la bul jël sa njaay di ko lonk ci grillage yi grillage yi mbokk yi ak garab yi ay fanweeri million la mbokk yi ak lu topp te ci ñaar téeméeri taalibe Serigne Bamba yi lañ ko jëlee yow nag bu fekkee ne da ngaa bëgg a liggéeyal Serigne bëgg a yaxantu ci dëkk bi def ko waaye nag nanga nga sàmm lii bu ci lonk saw njaay bu ci miiru bu ci weeru bu ko jéem a xët bu ko jéem a daaneel te képp ku ngeen gis mu di ko def jàpp leen ko arrêté leen ko te yee leen nit ñi ci lii lépp ñëpp lenn ku ne ngi ci biir na ko ñëpp sàmm ay eh waay yow miy màggal si na nga bàyyi xel ne xar mu Tuubaa dana soppeeku def nañ fi loo xam ne yow da ngaa bokk si ñi koy aar donte sax da ngaa ñëw di màggal si rek nga la moytul grillage yi nga la sàmmal garab yi ndax lii kat bu màggee bu yànjee kan la yanjal waaye Sëriñ Tuubaa lañ koy defal kon nag lépp ñëpp la na ko ñëpp sàmm nañ moytu di ci wéeru nañ moytu di ci wékk am njaay nañ moytu di ko jéem a xëtt di ko traversé nañ ko sàmmal sunu bopp mbokk yi ba mu mel ne yeneen xarkanam yi nga xam ne nit day jóge fu sori ñëw di ko seeti ngir jëmmi sëriñ Bamba léegi nag mbokk yi gannaaw bu leen yëgalee njuumte li nga xam ne ñii wut si def nañ ko te taxaw nañ tem ci loolu dakk yow it na nga bàyyi xel bu baax ne lii ëpp na fanweeri million te ñaar téeméeri bokki taalibe yi rek la yooyu nga xam ne Touba ngi koy Touba ca kanam a koy laaj ñaari téeméer ngir Sëriñ Bamba connexion ko gën a seer de kon ngal la booy màggal si gànnaayool gën jaaneew ñaari téeméer ngir lan tàbbal sa yéene ci lii nga xam ne mooy Touba ca kanam moom lay liggéey ndax kat bu ko ñëpp defee walaay yéene ji nga xam ne moom lu murid yépp am ci Touba mel ne Makka ak Medina mën naa nekk waaye du jóge fenn fudul ci sunu ñaar téeméer yi kon yow miy màggal si ngal la boo ñëwee nag ñu sàmmal lii waaye it booy ñëw gën jaa néew gànnaayool ñaari téeméer ngir jëmmi sëriñ Bamba bu ko fàtte